auzu billaahi mina sheytaani rajim bisimilah rahmaani rahim dama bëgg a préciser ne dama doon défendre Khalifa Sall di défendre Mbaye Touré aussi avocat xalifa Sall laa woon avocat Mbaye Touré laa woon en tant que jullit ak croyant ñu ngi sant yàlla di sant yonent bi sallallahu alayhi wa di sant suñu waajur di sant waa réew mi di sant sénégalais yëpp réew dafa am foo xam ne dafa toll am na yu bari yoo xam ne lii wartuñ ko seet li war a seet mooy lan moo koy jëmalee kanam lan mooy ubbi fëgg bunt yi ubbi bunt yi pour euh, ku nekk mën a gis sa bopp si réew mi pour ñu mën a avancer nekk si yeneen mbir yoo xam ne nii day gën a réew day jëmale réew mi kanam da koy naatal bi ma defee li ma war a def C'est mon frère nek ci biir dossier bi jeex tàkk dama wax ak ma initiative personnelle du le moo ma Touré moyenné, du initiative saisir président de la république président li ma mu defal lu victoire non pas de maître Khassim mais victoire du peuple sénégalais

li ma bëggoon Mbaye Touré génn mooy suma mag la li ma bëggoon mooy Yaay Bodian génn parce que suma mag la man maa jël suma initiative personnelle jël suma responsabilité personnelle saisir président de la république ak garde des dama bëgg sama frère génn dama bëgg Khalifa génn dama bëgg Yaay Bodian génn ñu defal ma la ma bëgg et suis mes positions je suis ma responsabilité te si c'était à refaire je aurais refait bu jotee danañ ko xam bu jotee danaa jël li nga xam ni def naa ko danaa ko jox journaux yi

bis bu jotee danaa ko génne danaa ko jox journée dañ ko publier bu ko défé Sénégalais dañ ci am une opinion très claire de ce que j'ai fait pour obtenir cette grâce présidentielle suba ba légui nit ñaa may wo fu nekk la ma nit di woyé ci réew mi ci bitim réew di ma féliciter di ma gërëm ci sama taxaway mais lool bu ma ko am kilifa yi bako sékkal ñomako may sëñ Mountakha Bachir Mbacké ñaanal ma ci kon ma ngi sant yalla di sant yonent bi sant Serigne Touba. daf naa ci loo xam ni luma wara ma def la lo xam ne nii la pour ñu génn te caabi bobu suñu borom si sama loxo la ko jaarale dugal naa ko gis na ay nit ñu bax ñu tontu ma ni ma ko bëggee.